loolu mooy soppeeku bi ci am ndax xëy na xam nañu li nekk itam ci état d'urgence ak li ci aajoog ak li nga xamante ni dund nañ ko ci biir état d'urgence loolu yëpp bu ñu ko tënkee madame Penda Mbow est-ce que jàpp nga ni tey jii comme ni ko Abdoulaye waxee Alioune Tine wax ko léegi les libertés au Sénégal dañu reculer. man képp ku ma xam rek xam ni sama gëm-gëm bu wér ci démocratie la aju man dama gëm démocratie. dama xeexal démocratie tamit. ay ati ati ati at te du ma noppee tamit di xeexal démocratie Sénégal dafa nekk réew moo xam ne nii dafa war a nekk modèle ci Afrique parce que sunu histoire moo ñu jox loolu sunu intelligentsia fa mu jóge ak la mu xalaat parce que tey bu ñu demee ba peuple bi war a mën a jaaxal élite yi élite yi dañu mel ni dañu xaw a dépassé ndax li peuple bi doxe ak ni muy doxale su ma tontoo ci lii dinaa dellu si ci question bi su ma tontoo ci lii yëpp suñu société dafa yegg à un point de non retour dafa war a am ay mutation ay changement yu war a am ci société bi mënatul continuer di wéy nii te àddina bi yëpp la sax boo koy seet toll nañu foo xam ne nii dañu war a xalaataat d'accord naa repenser complètement suñu nekkin suñu doxalin te man gis naa ni contrairement à Abdou Aziz. gis naa ni suñu société ni muy doxee. dëppoowul ak li jamono laaj ak li àddina laaj ak li défi yi laaj. défi yi li mu laaj laajul dajaloo bu bari. défi yi laajul ni ñuy daan doxalee ñu continuer di ko doxalee gis nañ ko yow sax duñu ko ko. sunu défi yi actuellement li mu laaj mooy rationaliser lépp loo xam ne dañ koy def. ak comportement bu mu mënti doon ci suñu biir société suñ ko deful duñ ci génn mënuñu continuer di vivre ak di dund niñ daan dunde hmm. ak di comporté woo niñ daan comporté woo te duñu fair face au défi hmm. damay jël benn question rek mënu looloo am mu yem ci ay xew ay leneen kenn sax amatul dara daanaka. Hmm, mënuñu am épargne intérieure bu ñu amul épargne intérieure naka la ñuy mën a investir suñu bopp lan mooy suñu priorité réponse boo xam ne nii man jëlee naa ko ci mbas mi te depuis début maa ngi koy wax mooy fii mu nekk nii bopp sa bopp la nag li ci ëpp nañu xalaat suñu chercheurs yi réfléchir à partir ci suñuy réalité ak suñuy am-am mu jëm ci artisanat mu jëm ci nu mu tudd ci pharmacopée mu jëm ci plante yi ñu seet naka la ñuy apporter des réponses aux problèmes qui se posent à nous. Hmm. loolu beneen débat. Hmm. léegi ma ñëw ci affaire liberté. xam nga assemblée nationale foo mënti dem ci àddina assemblée nationale moo espace boo xam ne nii fa la ñuy war a mën a amee débat les débats plus plus importants ñuy poser comme question yépp tey dafa waroon a nekk débat au sein de l'assemblée nationale. mais pour loolu mën a nekk aussi dafa fekk ban timu assemblée nationale la ñuy am ñenn ñoo fay nekk ci biir assemblée bi ndax nit ñooñu préparé wu nañu pour faire face à ces débats extrêmement importants et qui waxuma xam-xam mais dafay nécessité information bu rëy a rëy nga xam ni gëstu bu rëy lay laaj. Mm-hmm. naka la ñuy def pour renforcer situation assemblée nationale. naka borom xam-xam yi ñu nekk ci société civile ak ñooñu war a mën a indi seen xalaat sotti ko ci assemblée nationale pour débat yi ñu am yëpp ñu war ko fa mën a. assemblée dañ leen doon xaar foofu te gisuñu leen fa gisuñu leen fa. Mhm. waaye itam ba d'un autre côté aussi assemblée bi était était très éprouvée parce que gis naa ne assemblée bi mbas mi laat la leen bu baax a baax a baax a mhm. baax. loolu itam xam naa ni ci li leen delloo gannaaw mais damay xool assemblée ma ne assemblée mënul nekk rek. débat yi ñuy am fii mooy débat wu ndax dañuy lever immunité parlementaire ou pas alors que y a problème problèmes cruciaux qui se posent à notre pays assemblée nationale ci loolu la war a débat ci loolu la war a apporter ay réponses poser ay problèmes ci côté boobu. su loolu wéyee situation bi ni muy doxee occasion la pour man ma wax ci li ma xalaat. Mhm. gis nga ñun dañu nekk des sociétés sahéliennes islamisées depuis très longtemps. Mmh. des sociétés yoo xam ne nii dañu nekk société euh, euh, de la savane soo xoolee suñu littérature suñu littérature jël ko nga xool ko dañ ci daan def ay débat problème mu sexe c'est rare ba koy gis ci littérature mm-hmm. maa ngi koy wax sànq seen benn Ousmane bind na livre boo xam ne nii pour man livre yi ma gën a neex boobu ci la bokk ñu tuddee ko weexi cosaan ça porte sur l'inceste mm-hmm. mais kenn du ko wax kenn ko lire kenn ko signifier mooy affaire débat sur le sexe dans l'espace public mosul existe ci Sénégal pour la première fois ma gis problème boobu posé wu dans l'espace public. ci affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. absolument c'est un tabou. Hmm. kenn ci wax. lu muy rel lu muy révélé léegi da daan gis am na si sunu culture ñoo xam ne dañu naan lépp am na fi nag lépp am na fi waaye lépp. Hmm. mooy société yoo xam ne société de dissimulation la. da ngay ñëw boo fi ñëwee si sa néeg fekk sa jabar. nekk ci néeg bi nga fekk ci buntu néeg bi ay dàll yoo xam ne xamoo ku ko moom da nga war a wëlbatiku dem toog ci suñu culture yi am na fi ça veut dire que sutura cest à société yoo xam ni société de sutura la société yoo xam ne ni société yoo xam ni d'accorduñu ci lii di am nii mm-hmm. tu vas me dire que réseaux sociaux yi ngi ci influence yu li xew Europe tey jii chaque jour ñu ne la kii pédophile la ba mu nekkee pédophile 30 ans dem na ci doomam ba nga xam ne man yow sax boo leen déglu bu yàggee bu yàggee sax dafay troubler sa bopp. Mhm. débat boobu nag bu yegsee fii Sénégal le peu de cohésion bi ñu amoon ci société dinañ ko perte waxuma nag ni il faut abuser des gens. Mhm. jamais de la vie criminaliser nañu viol def nañu lépp. mais nag lu mu mënti doon nañ ko teg ci yoon nañ ko teg ci dëgg nañ ko teg ci loo xam ne nii dafay am. Mhm. léegi éducation amatul ci li may wax mooy jigéen ñi ñun ci suñu bopp xeex nañu ay décennies ay génération yu xeex yu bari lañu waaye tey am na jigéen ñi nga xam ne li ma gën a gis ci génération yi hmm. non seulement engagé wuñu duñu xeex mais aussi dafa am li may tuddee la vénalité vénalité jigéen ñi dafa dab seen vulnérabilité hmm. dëgg la nag situation yi ñu dund dafa metti mais vénalité bi vulnérabilité bi kooku ñun jigéen ñi ci suñu bopp xanaa bu liy paree dinañ delluwaat mobiliser wu ci question yooyu may gis. mais pour ma ma terminer nag ci affaire liberté. oui effectivement. il y a une trop forte concentration parce que je pense que le président quand il faisait euh, mu ko doon wut xanaa dafa yaakaaroon ne bu koy def mooy gën a facile pour mu jël ay mesures pour xeex mbas mi. Hmm. waaye itam su mbas mi jeexee Sénégal nekku réew moo xam ne nii dafa war def lu ko nu mu ko nu ko soobee. Mhm. parce que ñun modèle la ñu war a nekk. Mhm. et puis suñu histoire fi mu ñu jëlee dafa sori. Mhm. dañu xeex ba yegg si fii ay génération génération génération kon nag ak lu mu metti metti metti metti nañu delloo si concertation nañu delloo si consensus d'ailleurs sax dañ ko fekk ci islam. islaam bi ñu am ñun muy islam sunni. islam la boo xam ne nii modèle bi muy jël mooy modèle consensus ijma. loolu la ñu xam. nañu delluwaat ci consensus nañu delluwaat ci model te ñu sàmm yi àq ak yelleefu doomu aadama parce que loolu ma tax Sénégal aussi ñu ràññee ko. loolu moo taxoon aussi Sénégal ñu jox ko raaye loolu moo taxoon aussi Sénégal bu mën na taxaw fépp ci àddina ñi ñun ñooy Sénégal nañ ci delluwaat bu ñu ñàkk li nga xam ne dañ ko am comme acquis depuis 1960 ba léegi. Hmm. faut pas aussi ñu dellu ci situation boo xam ni dafay nuroo ak situation. dans de la période senghorienne ou un peu avant noonu lañ ko éviter. donc boo leen déggoo recul des libertés clairement dafa am. am na am na il faut l'admettre. Mhm. mais contexte bi moo ko indi moo ko expliquer contexte bi dañ ko dépasser rapidement pour dellu ci lu ñu mën léegi nag ma terminer ci benn affaire rek. oui allez-y li may ñaan mooy il faut qu'on aille vers un climat d'apaisement. su ñu demee vers un climat d'apaisement ni ñu koy defee mooy. ci côté pouvoir ñu ñaan ñu indi apaisement ñi nga xam ne ñëpp rawatina jigéen ñi tey jii dañu nekk ci lien de détention ñu seet ni ñuy régler problème boobu. mais ñi nekk aussi dans l'opposition ñoom it nañu moytu di xam te ñu wax ak seen militants yi gis nga Sénégal gii bu yàqoo ñun ñëpp la yàqoo. Mm. te gis nga violence bu fi installé. dinañ dem ba kenn dootu ko mën a maîtriser parce que ñu bari dinañ prox buruxlu ci loolu. Mm. pour créer. instabilité au niveau du Sénégal. da ngeen foog ni tey bu violence amoon ñi nga xam ne dañu soxla Sénégal am instabilité yëpp dañuy toog croiser les su boobaa ñoo koy xam ñooy dugg ci réew mi. Mm-hmm. loolu tax ma yaakaar ni. Mm-hmm. ñëpp nañu xool lan mooy la pour et lan mooy intérêt Sénégal intérêt Sénégal mooy stabilité. intérêt Sénégal mooy stabilité bu ko defee au niveau du pouvoir. ñu indi ay mesures d'apaisement mais opposition bi aussi mu xool naka lay def ba. retenir militants yi ba militants yi bu ñu dem ci situation boo xam ni day nekk une situation de non retour. Mm-hmm. je pense que yaa ngi wax depuis mais est-ce que xëy na peut-être